mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah in waliyallah mbokk internet yi xam ne yéen ñu baaxoo suivre à travers seen site bu mag bi nga xamante ne mooy Salam Vision ci jotaayu xam-xam bi nga xamante ni moom lañ tuddee faj sa jàngoro ñi ngi amaan mbégte tey li koy sabab bi tax mooy dellu soit seet soit suñu xarit suñu jarbaat suñu mbokkum taalibe ñu gën ko xam ci Serigne Souleymane Diouf nee doot ñu ko présenté ndax mooy ki nga xam ne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 sëñ a jël lay ziar bu baax. macha allah lay fay nuyoo di wax ne namm na la lool macha allah. di nuyu mboolem koo xam ne mën nii bàyyi xel. Hmm. gëj a gis loolu namm leen lool macha allah waaye nag du dara. xar-xatu jamono te boole si tamit. nit ñi soxla ñu donc am nekk ku nekkul si liggéey. Mm-hmm. looloo taxoon donc waaye lépp jàmm ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah mboolem koo xam ne mu ni bàyyi xel. Mm-hmm. ñu ngi koy jox sama gumu xal gu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Serigne Souleymane Diouf ci nuyoo solo boobu ak ñaan yi macha allah rabbi ni nga ko waxee rek. ñu njëkkanteeg waxtu bi waaxu ndax xam naa ni fi mu ne tey bëri na téléphone yaa ngi sonné boobu ba léegi macha allah rabbi mm-hmm. waaye fi may taal tàmbalee waat rek mooy ci fa ñu mujjoon a jeexantale Souleymane defoon naa ni tukki yi jeex na ndax newoon nga ma tukki yi yëpp génn uti ji waat xam-xam la dolli xam-xam la mm. waaye itam dimbaliwaale lenn ci jaam yàlla yi nga xamante ni dañoo nekk ci bërëb yu yi mm. waaye bëggoon naa xamaat bi ngay doole ñëwaat nii lan moo ko sababoon ci ci xam-xam bay dolli ko ji woon wala wala wala wala wala taxawu yi moo la taxaw na jóg itam waaw sant yàlla waa tukki bi moom tukki bi jàmm la dafa am yenn xam-xam yi ma gëstu ji woon ak koo xam ne tamit maa déplacé nekk nekkoon ko liggéeyal. Mm-hmm. mu nekkoon si foofu na di liggéeyal liggéey boobu nag moom mu tënkoon nag. Mm-hmm. looloo taxoon mais nag ñibbisi naa. Mm-hmm. ba fii ak fan yii rek incha allah rabbi. incha allah rabbi incha allah la macha allah xam-xam moo a jeexale sa ñu daal loo koy laaj fi mu ci jamono yi ñu ci wàllu xam-xam mooy lépp loo xamante ni suñu borom dimbali na ko ci. may ko ci xam-xam ba mu mën koo saafara amatu ci sikki sàkk amatu ci naataable moom ne na sant yàlla bu baax ndax doomi aadama ñoo soxla preuve kon nag xam-xam fu mën a jokkoo rek nañ wuti gi pour nit ñi di gis preuve ndax preuve yooyu moom lañ bëgg ndax alalu àdduna dafa sax sa doomi aadama. Mm-hmm. kon nag nit ki soo joxee war na kaa doxal. defal ko ay ba affaire ba sotti. Hmm. xolam sedd sa xol sedd sa boobaa suñu borom nee na jàppale. Hmm. mais moom preuve moom lu mu si def bëri na moom. Hmm. lu mu si def bëri na loolu mujj na tey jii ku fi ñëwoon tey jii rek. loolu moo doon wax. wax dëgg yàlla ndax preuve moom li si def moom bëri waaw loolu dañ koy doolee sant yàlla. waaye du Souleymane Diouf la déedéet. suñu borom subhanahu wa taala. daal moo yoyoo ñaan moom la ñuy ñaan rek may nangu di di ñaan yàlla ñaan yàlla yi ñuy def yàlla nangu ñu ko waaye du Souleymane Diouf Souleymane Diouf ab jaam rek boo xam ne day sëkk nu ram jéggalu yàlla di di jéggalu bu baax di ñaan yàlla yàlla di ko nangu loolu moom wax dëgg yàlla ñu si sant yàlla bu baax waaw macha allah wax nga ko léegi ci preuve ngay dox te preuve yi baanaka liñ ci am macha allah tuwaakal euh, yal na yàlla xeeb mhm. euh, mhm. waaw loolu moom wax dëgg fi neex yàlla yàlla dimbali nañu suñu si loo xam ne moom ku si mënti jëflante ba ànd na ko di yàlla ba saraxee ñu def ko. Mhm. naqar da la woon ginnaaw ba li jox doo fa demee doo fa demee ginnaaw kon yàlla. incha allah. loolu yéen a la de. ah. te lu muy lu muy xewloo rek lay daal di doon. incha allah suñ si ñëwee rek suñu xoolee ay mbiram la sax mën naa génn mën nañ wax ne fekk mënut a génn net wala boo ko def laaj yu ay sarax yu bëri. Mhm. tamit dañ la koy wax incha allah ay sarax la rek lépp génnoon alxuraan génnoon yàlla génnoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon ma la déggee bu baax ci la ci alxuraan la waaye li cëpp doole sarax koy def. def am na loo xam ne si sarax na loo xam di tërtëlu tërtëlu ñu ma nekkal la rek. Mm-hmm. waaw ñu ma dëkkal nag ñoom moom ñu ma jox tërtël te ma jox la ñu may utiliser allah. incha mm-hmm. euh, lan na yokkal doomu aadama ndax dégg nañu ne sarax day fànq dee bi doomu aadama bi lan la ko sarax mën na jëriñ rawatina bu xamee li nga xam ne mooy sarax ak njëriñu sarax mooy taala sarax moo gën a doole sangatu sarax billaay nu ma amee doole sax sangat sax naa naa ma déedéet sarax dafa baax sax taala mm-hmm. sarax mm-hmm. na jël sarax saraxee mm-hmm. na xëy suba saraxee ak sarax yi na war a saraxee sa sarax doo sonn sa bunt day ubbeeku. Mm-hmm. da nga naa man nan laa sangoo te fekk na sangoo dina de sarax yi ne saraxee da a sunu borom di ubbee. Mm-hmm. raw xam sarax la xam. Mm-hmm. bu saraxee la sunu borom mën na kaay jàppale. mais nag am na ñoo xam dañuy saraxe te ñu seen sarax. looloo war a paysaay seen mbir di tege tembe. wala ba ñu sarax seen sarax ba pare tëj seen bopp sa duñ ko xam. yooyu nag sarax moom baax na lu muy fànk bëri de mën na fànk dee. courte. Mhm. waaw gis nañ ko mu mujjee ñaanal démb rek démb. Mhm. rek sarax mu mu génne su ma waxoon ne ñaata la sa xaalis. Mhm. da nga naan déedéet. te suñu borom bi dogal ba mu ko génnee. daa génn tuuti rek oto bi moom si boppam. oto bi moom accident te dama kaa waxoon mooy moom. ku fa nekk tamit gaañuwul oto bi gaañuwul kii kiiwul bu baax. mais mm-hmm. sant yàlla la. Mm-hmm. sant yàlla la ndax àdduna sarax moom ku ko mën te mën ko. Mm-hmm. dee ko def fuuf moo gën loo mën a am. est-ce que waaw sarax sarax day bu baax si doomu aadama macha allah kon daal sarif moom bu bu ma la déggee bu baax a baax daal mboo mbooleem lu doomu aadama di def daal fi ne sarax moo ci ëpp moo ci ëpp doole daal fi mu fa la déggee bu baax a baax ah, macha allah euh, naka doomu aadama bi war man a def ba xam la mooy ay xam ndax bëri na fi ñoo xam dañuy jóg di saraxe rek waaye na xamuñ ndax li ñuy saraxe baax na war a baaxu waaw loolu maanaam boog na ngay seet ko xam ne mën naa adat sa tur su ma nee adat sa tur mm-hmm. mën naa seetal tamit moom su boobaa da la génne say sarax. mu wax ne sarax sàngam nay saraxe. heure sàngam ndaxe nay saraxe. waaw yooyu yëpp dafa am si si wàllu sarax. waaw sarax moom dafa am bis am heure am yow noo xëy defee. mais kenn ku ne dafa am sarax koo gis ko àdduna am na saraxam. waaw koo gis ko àdduna am na saraxam non kenn naa xam naa ay xudda. yooyu noonu la yor nag te rawxaan yooyu lay doxalee. Mm-hmm. yooyu moo lay dimbali. Mm-hmm. te yooyu ne il faut que nga xam sarax yi ndax moom mu ngi ubbi. Mm-hmm. su dee ubbi ne day doxat lu ko waral mooy sarax yi ne sarax yi moo baax sa moom. waaw loolu tamit dina waral nit ku mun a ubbeeku bu baax sax. allah damay faral di dégg ñuy wax ko daam ñu naan naa waan seen diggante ñoom ñaar. xam na xam na rawxaan. muy jëmmi doomi aadama. miim anam dell miim dell na sa jëmm ji yëpp Muhammad la sa jëmm Muhammad la yooyu yëpp rawxaan ba la dafa tolloon ay biddiiw moo tax ñu xudda bi si doxee rawxaan bi day dox heure boobu nag dafa am heure yooyu dox dégg nga. Mm-hmm. léegi nag yooyu noonu si boppam nag si la yàlla dimbalee si rawxaan yooyu nag nga xam ne heure bi muy dox. Mm-hmm. ak heure yi day jóg. Mm-hmm. ak heure yi day saraxee. doo sonn. rawxaan mooy doomu aadama. loolu su yéen mun si yow nga xam saraxam doo sonn. loolu après ça am na ñoo xam ne suñu dagg xaatim dañuy xam heure bi nga koy surtout maa ngi jàng asraar pire nag. Mm-hmm. xam asraar pire. Mm-hmm. wax ma ñu xamul de. ñu xam asraar pire la laa wax. Mm-hmm. suñuy dagg xaatim. xam ne ñuy daggee xaatim am na ñuy duggee turu nit ki pour yàq ko. est-ce que. moo tax yàq nit moo gën a bon fii. te am na ñoo xam ne ñu si bari yàq nit leen gën a mën sax defal nit. waaw kay. damay dégg itam ne la ñu naan euh, mi ngi ci ndox mi ñu naan mi ngi ci ngelaw la ñu naan mi ngi ci safara si ñu naan mi ngi ci. loolu bu mu demee. loolu kenn ku ne loolu la may may raw xaan gis na nit mm-hmm. ndox am na ñoo xam ni ah euh, nitu ndox la mm-hmm. ndox nag boroom suuf la mën a àndal. Mm-hmm. nitu suuf. koo xam ne nitam suuf la. biddewoon suuf la mm-hmm. kooku la mën a àndal seeni mbir day naat mm-hmm. dina jékki-jékki gis koo xam ni amul soxna mm-hmm. ñàkk lépp day ñàkk rek suñu borom dogal yàlla boole kaay jigéen takk ko ba pare ah mbiram dox lu tax mbiram du dox mooy ku mu takk ñoom ñaar seeni biddéew daa ànd ànd am na ñoo xam ne tamit seeni biddéew dafa nekk seeni doom <laughs> dégg na waa déggoo baax baax am na ñoo xam ne seen wërsëg. Mm-hmm. dafa nekk seen njaboot. Mm-hmm. sànq am na ñoo xam yàlla seen doole mën nañoo takk soxna takk soxna ba seen mbir dëgër. Mm-hmm. yàlla di leen nattoo foofa. léegi suñu borom dogal sa doom judd sa lépp ay béeku. mën na am doomu jigéen. daan na na taaw la doomu jigéen sa lépp ay béeku wala taaw la doomu góor sa lépp ay béeku. yàlla mooy dogalee noonu si mbir. man paysa damay dogal ne paysa damay wax naa leen nan bàyyi jigéen ñi ni gaafal mm-hmm. donte gaaf am na nag mm-hmm. gaaf am na de mais nag na nga ko bàyyi di gaafal nit ki am na noo xam ne soo ko defee mm-hmm. gaaf du la wàññi dara am na yoo xam soo ko sangoo jigéen gi soo ko tax te lu mu am gaaf gaaf di la jàpp boo tax nag wërsëg loolu na wax na muy biddéew ndox suuf ngelaw ak safara ñooy mel ànd boo xoolee nag nit ki day taal tey jii. Mm-hmm. doo ko teg sa ndox. doo ko defee sa ndox mu mu fay. Mm-hmm. léegi soo tegee si gi lu mu wax ngelaw lu ëpp mm-hmm. pour mu booy. misaal bi yow mën a def. kon ndox ak suuf ànd. <laughs> ndox si boppam si suuf la jugee. Ah? ñoom ñaar dëkk. léegi na kee safara mu ngi jógee si ngelaw ah léegi na loolu moo lay wandi la maanaam kenn ku nekk say mbir da nga takk soxna amul xaalis da jékki-jékki takk soxna boo xam ne seeni mbir dëppoo mm-hmm. nga takk ko pare ñàkk ñu naan jigéen nga moo ko moo ko moo jigut mm-hmm. léegi soo ko taxee ba pare nag seen biddew dëppoowut mm-hmm. da ngay xooli ji waat ak Alxuraan solution solution mooy ne mais adat tur yi fa la tàmbali woon ba day adat fa day tàmbali waate wàcc nag chiffres yi defal leen ab saraxu miskir wala benn sarax bu mu bu mu laaj sarax boobu soo xëyee raw xaani ne nii dëppoowaat ati fintaa la macha allah xam-xam daal kon xaw ma bokk ci daal wax dëgg yàlla su ma la déedéet loolu tax fi ne Souleymane di rey boppam bés bu ne mi ngi gën dem di gëstu ji waat non man ma damay gëstu ji moom gëstu moom fii ba bu ko amee am santaan moo xam ñaata at la di jëlee waaye fii maa ngi dund sa bakkan mhm. xam-xam moom fu mu nekk dinaa ko jëlee ci. alhamdulilah. jërëjëf Serigne Souleymane Diouf ci leeral boobu dana tax xam naa ne mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre à travers Salam Vision gën a bàyyiwaat xel ci seen diggante ak seen i raw xaan ak àndandoo yi ak sarax yi nga xam ne war nañ ko ci def ma allah rabbi waaye bokk na tam ba tey ci wàllu ndaw. yàqale doomu aadama Souleymane Rap ni mu ni mu ni mu ni mu def réew mi dama ni mu tënk fii mi dafa ëpp ngeen ciy dimbale askan bi ah rab rab day moom bëri na moom nee naan bëri na fi mais dèjà ba hmm. a hmm. ñoo xam ne ne rab moo leen topp te topp leen hmm. <laughs> sëñ bi liggéey wax doy na waar. waaw wax dëgg rab. rab moom am na. Mm-hmm. ndax rab may jinne. Mm-hmm. ndax arab moo jinne rab may wàllu olof. Mm-hmm. rab am na sëñ rab moom yaa dimbal nañu moom ku mu mën a doon ba ànd na ko lu yàlla ba ànd na ko lu yàlla. ñu dindi ko. wala na gis ko la bindal juróom-ñaari. déedéet quatre-vingt-dix-neuf tabbatira mm-hmm. loolu naa xam internet yi mm-hmm. quatre-vingt-dix-neuf tabbatira quatre mm-hmm. boole ka ah juróom-ñaari sallallahu ala muhammad wala na bokk na junni sallallahu ala muhammad na sangoo ko fukki fan ak dañ siy sangu di si naan. junni sallallahu ala muhammad. waaw mu ne ñu bindal la junni sallallahu ala muhammad. bindal la quatre-vingt-dix-neuf tabatera. Mm-hmm. nga jël ko sangoo ko zuuru alxamis lañ koy mm-hmm. boo ko sangoo ba pare. Mm-hmm. nga génnee quarante yu weex. ak quarante et un gure rab bu nekk si yow doo rek si kàttanu yàlla. maanaam tabati yadda. Mhm. quatre vingt dix neuf. Mhm. sallallahu ala muhammadin. cent. cent. Mhm. muy cent quatre vingt dix neuf. Ah. nga jël ko xool ko sangoo ko. fukki fan benn. waaw ah. ko ci bésu alxames. bésu alxames bu jeexee ngay door saraxi góor yi wala premier jour bi a sam tàggoo. bu jeexee da ngay saraxee. est-ce que. incha allah. yow daal kon fi mu toll mën a liggéey ku ko def dina taxale ak rab. bu àndee na ku ne yàlla ndax moom yàlla may dem si ay preuve man. waaw ku ne macha Tubarkalla léegi lan moo tax nga ni sëñ Souleymane nga ni euh, dafa da nga mere sëriñ si ndax dafa bëri ñu ñuy dëkkaaleel ay rat ay rat jàpp leen. ñett nit ñett nit dama ñëw ba sama wax na wax na ma ay tur mm-hmm. lu mu tudd tur yi rat. Mm-hmm. wax na ma ñetti tur yoo xam ne enquêté nañ seen xaalis ba dafa juñeen. Mm-hmm. waaw moo tax ma ne may mere yi def sëriñ si. albaari yi def te nu may tubaab aati yi kunde di xàkki di xàkka. waaw kay na jàng ji xam-xam. man aw ma xam-xam waaye na jàng ji xam-xam. ok. nit boo ko bëggee ko am a def ba xam ko. man de moom fu ne jàkk xam naa ne am na rab wala amul rab. man naka a def ba wax la naan am naa rab fi kàttan yàlla. ma gis ñoo xam ne fi mu ne jigéen yu bari ñu ngi di la gërëm di la ñaanal <laughs> waaye nee naa jigéen moom bu santeeg sëriñ rek mooy sëriñ dimbali na ko ca borom <laughs> a wax noobu vingt quatre heures de xamagu ko. incha allah rabbina yàlla am na tamit du waaw kàttanu yàlla. maanaam vingt quatre heures la résultat bi. bu àndee na ko di yàlla. Mm-hmm. ok bu àndee na ko di yàlla. loolu mu demee. waaw lépp gën a ñu alxuraan rek. lépp àll lay jox na naan na sangoo ko am noo xam ne na dogalu yàlla na jaxasoo ak sa borom kër bu ànd na dogalu yàlla yonent yàlla Muhammad moom sa jëkkër moom doo topp comme xaj bu toppee borom moom fekkee ne koo xam ne amagul borom kër mm-hmm. na loo xam ne mën na kaa def si xaj mm-hmm. ku góor ko moom mu neex amul naqar yëpp lay dàq te ni nga ko mën a def ci ko góor bu baax sax li tax xale jigéen ñi xale yu jigéen ñi ne ah, fi ne jigéen ñi laa bëgg at mi ñu dugg si ni at bu bees si kàttan yàlla. Mm-hmm. ñeenti weer laa maye ne ñeenti weer laa maye. Mm-hmm. cinq euh, kii fukki nit ak juróom quinze personnes. Mm-hmm. ba quarante nit. yoo xam ne dinañ am te ñëwee su may lu may lu ko defee ni ko defee incha allahu rabbi dama a am nañ borom am daal am yu amagul borom mm-hmm. la seesee nga may leen secret boo xam ne bu ko ci def am borom kër. incha allah la su ne taalibe yi bi ne ala leen jox nga xam na. waaw li ma ko wax si kaw mm. waaye moom dama ko dee ci suuf. loolu moom kilifa ba ko jox lu wér. te def naa si démb démb gis résultat démb démb loolu laa ko def tey suba la ma woon ma waa ji léeg day yónnee si bopp. daa hmm? ko Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane bu ma yaakaar la. wallaahi ndeysaan. ok bàyyi. nan si demaat la ne aywa bisimilah. jërëjëf Souleymane dégg naa tam dafa am ndombo kaaraange boo xamante ni fii ne moom la Souleymane indaale bi muy jógee ci yoonam bi ndombo loo xamante ni buñ la ko defaree ba tëj ko ñetti bopp lay am waaye dégg naa ko la liggéey faatu. daa ko Cheikh Tidiane daal di liggéey laa bëgg mu jeex sa àdduna sànni nit ñi gort laa bëgg mu jeex tàq. Ah, sa bopp. Ah, mais nit ñi lu may loo bëgg ko def ko sa bopp ni ku la laal yàqu. <laughs> xam nga man dama tax dama naan. xam lu moo ko gën. bopp. nooy aar sa bopp bu baax mu tedd ba dina la wax naan. dalaa wax naan nit nga fekk mu tëdd mu dee fekk ñu fi moom kilo kilo. kilo laa wax de. ay gàllankoor ay gàllankoor waaw. wax dëgg yàlla tàngatoo. waaw fagaru day day gën faj. fi ne ñoom ngeen xam loola. Hmm. am tegtal booba. Hmm. ñun dënn fi fu ñu jëm. fexe ñun ñi dañ bàyyi wu ma laa ñoo xam ne doxuñu si wàll ñaan fu ñu jëm. moo hmm. tax nit ki day aar ah, sa bopp waaw mais kaaraange moom am naa si loo xam ne moom bu ànd na wala yàlla incha allahu rabbi moom ku la laal yàqu moom loolu moom ma naañ te ndomb ngi la te ndomb yi yëpp bokkuñu hmm? bokkuñu de am pour ëmbatani yi la waaye xaalis maanaam boo xam ne kaaraange doon na sa or wërsëg te wërsëg ku xam ni tamit kaaraange da si si dox tamit da ngay sonn hmm. ok kon daal moom mooy ay façon la. waaw ah, ah, bokkul am boo xam ne percal laa xam liggéey. sangaayu mm-hmm. ñëw. Mm-hmm. laa liggéey. comme ñaata xeetu ah, xeetu ndox. benn bu ne ak lu tettale si doomi aadama. te xam-xam bi. bi ci ëpp doole moo ci non ndox yi ban moo ci doole. mu hmm? ci doole ci ndox yi. bu may ëpp doole bu may joxe dëgg pire may bi homme de tenue yi. Hmm. Hmm. tradition yi nga xam ne dañ seen i si kàttanu yàlla si zaaxir ak si baatin. parce jàpp fii yaay toog éliminer ko. li ma koy jàpp dama koy xam. kon daal dafa mën ko lii ak yow fi mu toll nii kon su ma la déggee. man déggoo lu ma la gi soo xasee ba takk ba ma jox la ko pare damay communiquer am nomba gi da nomba gi raw xaal laa àndal. Hmm. fa àndal jinne affaire yi jinne la moo tax moo tax man de quarante la. Hmm. yow mun na waaye ku ko am santal yàlla. Hmm. macha allah doomu xaatir bi mu ñu jox ma ko mu wér ma peñ ma toog ko liggéey te bu mu koy liggéey. Mm-hmm. toog naa quarante jours yoo xam ne mais wax a yow. Mm-hmm. te duma salaam. waaw waaw. bëccëg gi dong laay jékki-jékki te jox te ñeex tëdd tuuti guddi gi na ñu ne xam ne nekk amul di bind. Mm-hmm. waaw lu amul seede baaxul. mais bind doo a boppam tax kenn ki daa am vraiment yow doo tëdd nelaw ma nekk déedéet jaam yàlla yi laa bëgg ñu am preuve. loolu mooy incha allahu rabbi fii suba wala ginnaaw suba dina dina dina lépp dina xajal fii. incha allah incha allah bu neexee yàlla. yàlla na yàlla xel dolli. jërëjëf sëñ Souleymane ci euh, la bu baax a baax ci askan wi li nga leen yéene jàmm ak salaam ak tawféex ak mujj yàlla na yàlla sama borom def ci tawféex bu baax a baax a baax. ñaari question rek ñu jeexale ko jotaay bi xam naa ni. fo doo bëgg di faral di ci wax waaye ñu ñaan la ko tey benn bi ci njëkk mooy am na lu ñu waxtaanoon ci Ousmane Sonko nga am loo ma ci deewoon waaye nag ma ci deewoon dafa mel ni am na ndax bu ñu xoolee déposé na candidature am donc am na ko mu délégué woon pour mu a dem ci place am ci élection présidentielle yi di ñëw waaye est-ce que gis nga ni gannaaw bi ñu déposé seen candidature des na leen ko nangul ak ah, ndax dina dem élection bi ah wax dëgg na yàlla ba bërki déem ma ma si doon gëstu am na ma am na ma si ma gisaguma mu dem nag. Mm. du ma ni du fal du ni du bokk. Mm. Mm. si biir pare bokk te ab falu. dëgg na nit mën na jaabante si biir pare. te doon fa dara. loolu nit mën na kaa gis. waaye man Souleymane Diouf laa wax. gisaguma président Ousmane Sonko toog président gisaguma ko. dama ne du falu nag ndax yàlla moom moom moom fal waaye bis bu ma muy falu hmm. ah dinaa ñëw taala man la ah président Sonko de gis naa dina falu hmm. sooy sooy jub si woon tey waroon falu hmm. naan la kat Ousmane Sonko de falu waaye gisaguñu ko wax kay te élection yàlla am boobu ba nag baat bi ngay wax moo ma ci yàlla am ah, te teel a candidat yi dépôt candidat yi teel a yàlla am si jàmm yàlla na am si jàmm. waaw. ma si gis neexuma moo tax. gis mhm. nga. ko mën a fànq ci ay xeeti sarax ak yooyu nii. na xale yi moytu daal daw ci ji kaaraange. ndaw ñi. Mhm. ak fii si dina bëri. Hmm? wallaahi. dañ ci joxe message. ndax coow coow li coow li jëm si nii si politique bii. Hmm. coow la bëri de. même président dana métti guddi yu toll nii. Hmm? Mhm. Ah, waaw tawatam gis naa tool bu métti sax. président jeexalagul de. Hmm? jeexalagul de. Hmm. <laughs> loolu ñaaw te dégg-dégg ay nag. ah man de xam na man noo wax moo tax dëgg neex na ay nopp nag. Hmm. waaw président guddi yi toll nii ka mu ka mu nekkal biddéew moo kawe. jabaram di mu nekkal dafa fonk. maanaam fasal. dafa fonk. falul ma si kenn nag kenn jox ma si dërëm. mosuma gis président. mësuma xaw ma ko ko. télé bi daa koy gisee. mais eh, dafa mu ci message bi kon mel ni xanaa benn bi ci des mooy. le premier janvier. talaata ji di ñëw lay doon incha rabbi. <laughs> Modou Lo nee na day jeexal Pikine. <laughs> waaye boo ñaan nee na ko noppee naa daan waa Pikine. xam naa neexee sunu borom. dinaa la wax ni ñuy daanee kay daan lu muy daanee si kàttanu yàlla. di ma wax kay daan. kay daanee al la muy daanee al la nga koy daanee al la de instant yi du ma si wax. ndax. daa ma si wax dem xam naa ko altine la le premier la. waaw. xam naa ko le premier ma bàyyi la ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma am loo xam tamit dama koy mm-hmm. tere. xane paas ni ma si waxoon dafa jur coow ba su ma jur woo mu ne ma bàyyi wax mm-hmm. mm-hmm. si làmb kooku ñëw kër ga mu ma doo yàlla doo yële doo xam ne samaan xamoo kii daan man bu àll ne na ko lu yàlla fekkee yàlla may du mayee nanguwul ko Modou Lo dina daan Ama Baldé te nangam la koy daane côté saako yi nangam te kay dawi di ñëw kooku noonu mën leen ni maanaam am na si koo xam ku jege Ama Baldé mu moytuwul seetaan làmb ji wala boog làmb ji du ko eggale loolu laa leen ko waxee ba si yàgg mu ne waa baax na doo yàlla doo yëgante mu ne ko waa baax na affaire bi daa loolu après coow di jiw sama kër sama kilifa sama kilifa woo wax ma si bootal làmb bëgguma si des wax waaye ah, man moom làmmiñ ji nii nii nii nii. Mm-hmm. wallaay léegi laa ilaaha illallaah xam naa kii daal xam naa kii daal xam naa loolu koy daal. kon daal di wala samedi. waaw samedi si boppam te si guddi sama waaye man nag diw mooy daal. incha allah incha na loolu moom mën naa kaa wax sa téléphone yow. Mm-hmm. waaye si internet bi nii. Mm-hmm. Ah, di ma si wax na moo dëgg yàlla dama kaa ñu soog mu kaddu yu mujj bi ak message bi nga xam yaa ngi koy yóbbante askan wi mu doon. li may wax askan bi daal yal na yàlla defal leen yiw. Mhm. ak kaaraange daal du àdduna alaxira. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. lu ma leen di conseil daal. Mhm. en tant que ndaw. nu mu tëjee gàll te aar seeni bopp. te métti coow. noonu métti coow. police euh, tëdd police ba leen gi dina lool. te di police dina bëri loolu dina am kilifa bu gaañu de te loolu moom mooy maa ngi koy gis fu ma toog benn kilifa gu mag dina génn at mi te at mi ñu bu nii kilifa gu mag sax waaw kilifa gu mag sax waaw yàlla dafa jàmm daal ba ak yeneen bi yàlla yàlla dafa jàmm dafa ñu at mi ñii dugg mu nekk atum naataange képp ko si yàlla ubbi wu tamit yàlla na yàlla ubbi xale yu góor yi nga xam ne am nañu soxna tamit yàlla na yàlla may soxna. waaye takk soxna baax na jaamu yàlla la. jëlee yu jigéen yi nga xam ne tamit amaguñ borom kër yàlla na yàlla borom kër. ku si amul borom kër tamit yàlla na yàlla jubale ak sa borom kër. barke yonent yàlla Muhammad maa ngi ñaanal leen di ci ñaanal sama mbokk yi daal mboolem jullit. wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.